rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu Sëriñ Saaliwu Mbàkke bi nga xam ni moom laa fekk ci jotaay bi te mu wutu fi njabootu maam Cheikh gépp di nuyu soxna Maymuna moom Serigne Moustapha Caytu mii toog te taxaw fi taxawaayu njabootu maam Anta Njaay gépp du nuyu borom pénc mi di Serigne As Caytu moom Serigne Moustapha di nuyu mbooleem rakkam yi ne ci pénc mi te wër ñu di nuyu waa gaawaan gépp di nuyu nag waa comité d'organisation bi ci njiitul Serigne Khadim Mbacke Sali ak sëriñ Seexuna waaye jaare la ko ci sëñ Maamun moom sëriñ Amidoun ak rakkam yi mu fi bokkal ne ak sëriñ Xaadim Sill ak ñi di nuyu sëñ Maam ci jataay bi di nuyu waa bi ñëpp di ñu samay mbokk euh, di jaajëfal sëriñ Saaliwu ci tomb bi mu andi tomb bi daa mel ne sëñ Saaliwu daa waxtaane nag wi waaye loo ciy wax na ngay xam ne ca ndey jël ko jëlee euh, dafa am ku masal laaj sëñ Abdou laaj bu am solo dane woon sëñ Abdou ndax bàmba ji yaay ci la sëñ Abdou Lahad ko bàmba ji yaayee lépp ndax sëriñ Tuubaa noon na lii ma amee liggéeyul ndey du ko maye waaye ku sa ndey liggéeyul nag doo fi toog di ko xaar ba di ci jot kon lépp nday la Njaay nag walla maam Cheikh yaayam yaayam day réew mi Maam Njaay day réew mi fi ne sëñ Mbàkke Anta moomu mu tudd maam Cheikh Anta sëriñ soxna Faati Anta soxna Anta Sëli ñoom ñooñu ñëpp amut ci réew mi kërug doomi soxna gu ñuy dugg te doonuñ ca borom kër ga dara ndax li maam Anta Ndiaye bokk ak réew mi dafa amul jenn jigéen ju ko bokk réew mi maam Cheikh li mu doon ci yoonu murit wax naa ko waxaat ko amut keneen ku ko doon te lu mu doon ci sëñ Touba moom la doon ci maam Thierno ndax sëñ Touba maam Thierno ñoo bokk ndey baay lu mu doon ci moom la doon ci sëñ Massamba moom la doon ci sëñ Balla Coro moom la doon sëñ Cheikh Absa moom la doon ci sëñ seex coro ndax nit da ngeen di bokk ndey baa ngeen bokk baay baa seeni baay bokk bàyyi seeni yaay bokk yaay maam Cheikh bi nag façon mbokki woowu yépp bokk na ko sëñ Touba bi ci gën a gàtt rek mooy soxna Anta Ndiaye Ibrahima Awañang mi ko jur ak sëñ Mbacke moor Anta Sali mi jur sëñ Touba ak ahmadu soxna busa bi jur soxna astawaalo ñoom ñëpp ñoo bokk bàyyi kon bu dee ci wàll fàll googu rek maam Cheikh Anta nijaay yi sëñ Tuubaa nijaayam ndax maam Anta Njaay maam Cheikh ak soxna jaara ñoo bokk ndey ndax maam Anta Njaay ak soxna astawaalo ñoo bokk bàyyi te lim doon ci sëñ Tuubaa lay doon ci sëñ Busoobe kon boo delluwaatee ca Gédé loolu la fay doon ndax soxna astawaalo moo meññ sa sëñ bi kon Mamanta Njaay mooy yoon wi waaye bu dee boo delluwaatee ci Malamine Dem Malamine Dem wàlli yu la woon woo xam ne euh, maanaam amoon na tur yàlla wu ñu wax ci as samadu samadu bu ma bu ko masaa bind bu dee ci ab xare moo daa ñaanal buur bi jolof moo nekkoon sëriñam waaye buñ masaa di dem ci xare bi samadu lay bind gawar gi lépp lu dugg ci biir samadu gi da nga si su ko dara masaa tiim di naaw su ko wàccee ci biir samadu gi loola day wàcc ba ci biir samadu gi wax nañ ne am na benn xare boo xam ne dafa taxaw bind samadu ne li ma féeteen di joor na ma fekk ci biir samadu gi mujj waa dëkk bi di ne li ma féete càmmoñ na ma fekk ci biir samadu gi foofu la wilaayatum tolloon Malamine dem moomu nag moo am ñetti doom ak as astu dem moom la nit ñi yàq di wax aysa aysatu lañ yàq ci aysa astu dem moomu moo meññ mamballa aysa maharam lañ ko jox mu caat mamaram caat loo ci mamballa aysa sadio dem moo meññ mambara sadio di maami waa boofel yaasin dem moom la jox ku ñu wax yoro saw mu am ca kanni saw ñu jox ko Ibrahima Awañang mu am ta Anta Njaay Mbàkke mu jur maam Cheikh kon amul wet bu mu teg ak sëñ Tuubaa te maam Anta ak sëñ Afe ñoo bokk ndey ak baay waaye boo delluwaatee ci Awañang ma ko meññ Awañang mi meññ soxna Anta Njaay Ibrahima Awañang moo aram ñang aram ñang mi meññ ma haram mi tax ñu naan maam ma aram maam ma haram ko yàq naan maam ma haram waaye muudu aram la Mohammed moom aram ñang aram ñang mi ko meññi bërgël ma fent ñang ma ko meññi ma may càmmiñam moo jur awa ñang moo jur awa ñang bi moodu moom aram jan ba ñëw kër nijaayam la dellusiwaat ci jolof mu may ko doomam muy soxna awa ñang moom la jëkk a ci moom mam ma xaram taawloo ca ku ñu wax soxna mbàkke awa ñang moo meññi xaalima jaxate kalaak ya ca aju te teg ca ibrahima awa ñang kon soxna Anta day doomi buur ju bi yàlla dogalee mu war a ñëw ci kër Ibrahima Awa Niang nag eh foo la mbir ma ne jolof dañ koo yab dañ koo yabee lu garaw wax nañ ne bi muy ñëw ci kër gi juróom-ñaar fukki fasi naaru góor lañ takkal soxna Anta naaru góor wu nekk ka ko war jig soxnaam topp na ci ginnaawam di ko sant nga xam ne kon juróom-ñaar fukki góor ak juróom-ñaar fukki jigéen muy téeméer ak fukk ñoo fekk ñoo ant sant si soxna Anta Ndiaye te biñ dikkee delluwaatuñ ñëw ci kër Awa bi muy ñëw ci kër maam maharam maanaam li ko toppoon ci ay gawar moom soxna Awa Niang ndax booba ñooy buur ba jolof wax naa ne juróom ñaar fukki fas war nañ fas wu war wu ne ki ci war sa soxnaa ci topp kon day mel na juróom-ñaar fukki fas topp nañ ko waaye téeméeri nit ak ñeent fukk ànd nañoo moom kooku nag ku ne xam ne ci la barke tàmbalee moom moomu nag mooy wayju Ibrahima Awañan kon Ibrahima Awañan doon nag ki nga xam ne askanu Mbàkke moo ci ëpp barke barke Mbàkke bépp mi ngi ci loxol Ibrahima Awañan loolu it dafay am lu ma ciy leeral tuuti ndax jamono ji léegi caméra yii ak micro yi dana yóbbe nit ñi ci wax lu ñu xamut moo tax may wax toujours ne waaye boo may bàyyi sëñ Balla ak sëñ Daaru ñoom ñu ñëw ne ci terrain bi ak sëñ Mara ñoom ndax ñu lañ gëstu woon ordinateurs yi ñoo ko premier ordinateurs yi li mag ñi nettali woon démb ak li may dégg tey daa sore ba mel ne lañ déggoon nga xam ne ka ko fekk woon moo la koy nettali léegi ki nga jàkkaar lool ngir mu bëgg lii muy wax mu siiw ci nga damay wax toujours ne bu dee ci wàllu conférence nan jëli ku mel ne sëñ Gànne Mesere wala ku mel ne sëñ Bousra Samb ñooñu ay conférencier lañ seen gëstu ci man duma ak ab conférencier li ma dugal ci nett li ay wax dama jàng alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xam ci sëñ Malick Dieng ci njariñ bi ma demee nag ba war a nit ku baax ku am yéene ci man ñëw ne sëriñ Modou Rokhaya dama bëggoon nga jox ma Fallou Galas dama ko bëgg a yóbbu Gabon booba Gabon moo xew sëñ Modou Rokhaya na ma yow boo waree dem Gabon maa la fay yóbbu damaa bëgg nga ñëw jàngi sëñ Touba. loo jàng dul sëñ tubaa sëñ tubaa ko gën soo jàngee sëñ tubaa des na diir bu gàtt nit ñi dañ bàyyi lañ jàngoon te ñëw fekk si ma ne ko sëñ tubaa nu ma koy jàngee mu ne ma da ngay ñëw ma yabal la ci mag ñu fekkee sëñ tubaa ñu wax la wax xisey sëñ tubaa yépp te booy dem nga yóbbaale bindukaay ak lu enregistré wax may dem jaral ma dugg ci oto di dem ci ay dëkk déplacé ci ay dëkk yu sore te booba moyen moyen bii amagut di dem mu lay nettali dañ lay jox benn xisa di la ko nettali ki la koy nettali ne la man kat dama ciy bañ a juum ca sëñ Tuubaa kenn du ko neel waaye wax ji ba ma koy wax wu fekkee woon na ko ma nga ca dëkk sàngam nga jógewaat ci dëkk boobu paas dem ci dëkk boobu ngir xam xisa bi léegi nag ci tànt yi la ñuy fara xisa yi tëggaat ko ba buñ ko nettali rek macha allah moo tax wax ji mat di teey waaye maam Anta njaay maam Anta Ndiaye dafa yéem dafa yéeme mooy yoonu murit Ibrahima Awañang damay wax ne barkeb Mbàkke bépp mi ngi ci loxol Ibrahima Awañang te te liggéeyal na yoonu murit liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ne xam nga mbakke bi ko maam Maharam sancee bi mu ñëwee fii jaale si ma ma Lamine Sarr muy sëñ daara bañ rayoon bi mu delluwaatee la ko buur bi ne wax na ko damaa bëggoon nga ñëw dëkk ak man mu xamal ko ne ko man mënatumaa dëkk ak yow ndax damay mag. mu ne ko damaa bëggoon nga jox ma Ibrahima awañang ndax gis na ko muy loxol di joorul ma aram ba noppi bari barke rafet mu ne ko kii mooy samay tànk mënu ma la koo jox waaye danaa fi yebal magam yebal fi Ahmadou Farimata mu am fi fanweeri at Mbàkke tudd Mbàkke Farimata bi mu faatoo la fi Ibrahima awañang ñëw dëkk na fi fanweeri duñ wax Mbàkke Ibrahima awañang waaye Ibrahima awañang nag moo liggéey lu tax ñu naan Mbàkke Balla Mbacke Balla di ko moomale Mame Balla Aïssa day histoire bu gudd waaye Mbacke ñaari mag nañ Mame Balla Aïssa te waxuñu leen Mbacke noonu lu tax bi Mame Balla Aïssa ñëwee ñu naan Mbacke Balla loolu liggéeyu Ibrahima Awa la boo xam ne moo ko waxoon soxna Dieng Cissé ni mu yoroon tamit waajuru sëñ Modou la am lu mu ko digaloon ci Mame Balla Aïssa loola andi Mbacke Balla kon Ibrahima Awa ku yàgg liggéey ci ci ci tarixa bi la waaye Mame Anta Ndiaye mooy yoon wi euh, nettali nañ histoire nettali na ba tàyyi li ko indi kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moom soxna Asta Waalo moo ko yar soxna Asta ko yar moo ko jàngal jigéen ju mënoon alxuraan la te bari woon xam-xam egg ci kaw dafa dafa njooloon xees pecc ku masaa dendal moo la dàq ba noppi nekkoon liggéey liggéeykat yatt yi daana ko def moo njëkk a nekk jigéen ji créer société buy suub boobu suuba xew da daan def ay mbandi suub ñuy suub ay yére suub cuub yére yu bari boole kooku muy sàmm daa amoon ay gétt di sàmm daan bay da daan jàpp ay surga ba noppi nag di sëñ daara daan jàppale soxna an asawaalo ci daara ji di jàngale kon li li sëñ Saaliwu doon wax ci liggéey ak jaamu yàlla la soxna Anta ñaay boole woon gis nga turam wii tudd yàkkale yàkkale yàkkale moom wolof yëpp xam nañu ku dul joxe aw ñam di ko yónnee ci ay nit ñu la tudde yàkkale yàkkale du aw tur waaye turandoom yëpp yàkkale lañ leen di wooye buñ koy neexal naan yàkkale ngalam ngalam ku ne xam na ne wurus la yàkkaleeti na ngalam lañ daan wax maam Anta kat yàkkaleeti na ngalam ba mujj ñu bàyyi turu maam Anta di wax yàkkale ngalam yekkale ngalam loolu li ko waral mooy jamono ji nekkoon dafa nekkoon jamono ju doy waar léegi la ku ne mën a am bassin ku ne mën a am mu rafet euh, gars yi dem siin di dem Dubaay di indi tiise yi mu yomb nga mën a am ay dàll yu rafet waaye ci jamono yooya ab dëkk mel na mbubb ba fay am kuy dem da nga koy am jamono jooju nag la yàlla defoon maam Anta Ndiaye man man man booram nga xam ne daraan suub ay yére ba mu àgg mu mu def ko ci ndab mu lem ko def ko ci ndab wut ceenu or def ca ub ko takk ko yan ko benn xale ne ko demal yital ma ko sa bàjjan diw bu dikkee mu ubbi ko fekk ca muy yére yu mën a sol ak ceen gu mën a takk noo loolu la daan yàkkale daawul yàkkale ab ceeb ak cere loola tax na ku masaa seen yàkk bi ñu ne cëm maam Anta da yàkkaleeti na ngalam kon ba mu koy man kenn mënat gu liggéey na ci yoon wi liggéey bu rëy moom moom moo njëkk kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ci yàlla dogal muy xese boo xam ne jarut di ci jaaraat ku mu fa waroon a wàcce kooko ñëwut ngir xeeb xeebeel ngir xeebeel ndax Mbàkke kat léegi lañ leen teg ci kaw di fi sëñ Tubaa nekkee waaye bi sëñ Tubaa wooteegut yoonam wii kenn du may sa doom ko sant Mbàkke sëñ Tubaa defar askan wi boo waxuñu ne ay sëñ daara rek lañ ci amuñu doole ku leen may sa jabar ci laax lay dund lay lay dëkk booba ceddo bi moo sa réew mi sama doom garmi la ci yax bu rëy la bokk te xamoo ñu ne yax bu rëy sémiñe ci ay sëñ Tuubaa moo ñëw defar askan wi defar 22 yi damay wax ne 22 yi gënantewuñ mbàkke lépp yaa ngi tàmbalee ci mbàkkeef gënantewuñ sëñ Tuubaa ko defar ku ëpp as pas-pas nag jiitu waaye wënde yi moom ñëpp ko bokkale mam maharam rek la fukki doom ak ñaar la am juróom-ñett yu góor ak ñeent yu jigéen ah ahmadou farimata la tawloo mook ceerno farimata ñoo bokk ndey ak baay ahmadou soxna buso ak soxna buso ñoo bokk ndey ak baay ibrahima awañang moom képp bokk baay mambala aysa moom képp bokk baay juróom benn ngoog ahmadou xari Diop moom képp bokk ndey am euh, maa du soxna mbay moom kepp bokk ndey juróom-ñetti doom yu góor yi la am ñoo ñoo tasaaroo ci réew mi maam Anta Ndiaye nag moo njëkk kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye def fi ne taawloo fi ku ñu wax Mbàkke Anta maam Mbàkke Anta magee na maam Mor Jaara lu mat juróom-benni at maam maam Anta Njaañ lañ ko denc Njaañ moom moomu sëñ Touba wax na ne. am na wenn wayjuram wu mas a ñëw ci moom na ko dama gént gis ñaari jant yu bokk feeñ ci benn jataay ci senn asamaan sëriñ tubaa na ko ndax ñoo soowandoo ñoo soowandoo mu ne ko mbàkke dafa mel ne soowandoowul de benn jant ba ba mu ne jimeet ba tàmbalee leer la suux nee na teguñ ca lu mat ayub bis sëñ mbàkke anta wàccub liggéey nee na sëriñ tubaa wax ne mbàkke anta mii lii ne ci man ba ñëpp di ko topp su dundoon kenn du ma xam ndax ak baaxam nee na bi mu ko nettalee Cheikh Ibra Fall daf ko ne looloo ko tax a faatu ndax ku tee ñoo xam la du gudd fan waaye pour di la wan rek ne lu baax yàgg na fi maamante Njaay kooku la taawloo ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali teg ci soxna Faati Anta soxna Faati Anta magee na moom maam Cheikh Anta moom maam Cheikh maanaam li ko moo mag ci laa wax damaa jum ne moo mag ci ku sëñ Tuubaa di wax doom moo xam muy jarbaat baa doom moo mag soxna Fadja moo mag sëñ Mourou Moustapha moo mag sëñ Fallou ñoom ñëpp moo leen mag moom la sëñ sëñ Tuubaa njëkk a gis ci ab jarbaat ngir wan la wan la liggéeyu soxna Anta Ndiaye sëñ Mor Fati Touré mii gone yu tudde conférence bi bi maam Cheikh ma Fall amee ngërëmul yàlla ci Daaru Salaam moo remplacé maam Cheikh ma Fall ci daaray tërbiya tërbiyewu na ba ab am àgg ndax maam Cheikh Anta daa dagg àlliwaam maam Cheikh Anta bi mu jébbuloo daa dem jël sëñ Afe jël sëñ Mor Fati Touré magante lu bari kii dib rakkam kii dib jarbaatam mu boole leen jébbal leen sëñ Touba bi ñu jébbuloo nag mu ne leen duutu leen fi jóg bi sëñ Touba wootee tërbiya gi mu ne sëñ Mor fàtte Touré yow da ngay dagg sam njàng ndax li ne ci alxuraan ak lépp sëñ tubaa ko gën dagg tërbiya ak sëñ Mor Faty Touré jébbal sëñ tubaa sëñ Mor Faty Touré tërbiyewu na sëñ tubaa ba wàcc soo ko dalaat jàng nga xam ne bi muy dalaat jàng di jàng ab làkk la daan def làkk boo xam ne sump ak kàdd ak yooyoo ci ne mu doon jigéen joo xam ne taxawaayam ci yoonu murit bi yàlla dogalee bu bëgg kër sañ Mbàkke Mor Anta Sali yaatu dafa ñëw waxtaan ak sëñ Mbacke Mor fekk laata muy wax ak moom daa dem ci soxna Astawaan ne ko man dey kër gee ma nekk di fa liggéey barke ba dafa bari te mënuma koo jeex ma bëggoon ku ma àndal mu mu mu wut la ma barke ba samam xel nag na woon yar ci Mariama mii nga xam ne maa ko jàngal ndax moo ko moo ko njëkkoon di jàngal te xam naa li ne ci moom mu ñëw wetti li ma mu ne ko Mariama kat. dangay ndeyam ndax maag yow bokk baay ba noppi di sëriñam mënu laa ci kër di wujjeek yow mu ne ko wujjewul ñun ñaar lu baax dafaa ne ma di ko wut te bëgg ko wutlee ndax damay bañ mu raw ma te yéenewuma ko kenn ku dut moom soxna astawaalo jubóog moom ci loolu soxna jaar soxna Anta Jaay génne fanweeri dërëmi ngurdu fanweeri dërëmi ngurdu la génne jox soxna astawaalo na ko maa ngi dem waxtaan ci ak sëñ Mor suñ ci juboo ma andil la ko bi mu ñëwee waxtaan ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali daf ko ne fii ma toll day lu may def ci soxna nekkul ci sama sama sama jiba waaye maa ngi kaamil bu ma bind ba ñaar fukki isib yu mujj yi ci suuf moo ci des su ma ko àggalee mën naa koo jox mu ne ko bu kaamil ba àggee jox ma ko kaamil boobu la sëñ Mbàkke Mor Anta Sali àggale jox ko soxna Anta Jaay mu dem jox ko soxna Asta Walo boole ko fanweeri dërëmi ngurdu yooyu mu def ko ci soxna Jaara mu ñëw ci kër sëñ Tuubaa kon damay wax ne moo taxawee kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu surtout maam Cheikh Anta ndax Ibrahima Awa Ñangu ko mooy maamam dama fa dem di waxtaan ak moom mu ne ma soxna Anta Ndiaye xolam bu yaatu moo ko ay lim am ndax moo njëkk ci kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye moo fa mujj xam nga njëkk ci kër man ñëpp mboolem ña fa ne moo leen mag ba noppi moo muudu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moo ko muuru moo dëkka ak moom ca deqale loolu liggéey bu rëy ko ko may kon doon na exemple ci jigéen ñi ñu ci moom fi may daaneele nag euh, mooy sëñ Balla damay sant yàlla bu baax li may wax am na seere ci tànt bi dañu ne ngont mi maam Anta ko moom waajtaayu màggalu Daaru Salaam ñu cëral ci soxna Anta Ndiaye mi ngi soog a am mi ngi soog a am te fii ñu toog fii ñu toog la njëkk a woote ngontu maam Anta Ndiaye sëñ Modou Rokhaya digal ñu ko soxna mayum sëñ Moustapha Caytu mi lañ fi fekk si màggalu Daaru Salaam dafa jub ma dem archive nationale fekk fa ku ñu wax Omar Ba ma jël ci moom ay archive bëgg a def exposition ànd ak alaaji Njaay mi yor programme kër sëñ Fàllu ak sëñ Bay Bayti mi nekk daal Xudoos booba ñun ñoo fi nekk di yëngatu ci màggal yi di def ay exposition way juru sëñ Maamoun mais di sëriñ Amidou lañ sëñ Modou Rokhaya booleel biñ defaree panneau yi ba defar exposition yi moo ma wax ne ma am na journal boo xam ne sa baay Seex Jaxate bu ko amul boo ko laajee sa baay Seex Caam dana ko am maam Seex Anta ko foto woon ca Marseille ànd ci ak alaaji Mayoro Fall ma ne ko journal boobu am naa ko archive laa ko àndaale Paris Dakar la mi ngi ak sëñ Tàkko Fall Mayoro bi ñuy def màggal gi sëñ Modou Rokhaya nañu kuy defal maam Cheikh Anta da ciy jiital soxna Anta Ndiaye damaa bëgg ngeen def ngontam soxna Anta Ndiaye Xaadim Gueye mii di jàng su fàttewul li ma ko wax ngontam maam Anta Ndiaye li njëkk a jàng si fii maa ko fi indi fekk fi soxna May mais ñu di ko waajale màggalu Daaru Salaam kon bu yàlla dogalee loola di ay at yu yàgg ngeen toogaat ba ren ngeen di waajal màggalu daaru salaam tudde soxna Anta Ndiaye am ngont dama naan dog ngeen yoon wa waaye dégg ngeen waxe mag dégg ngeen waxe mag ren it euh, màggal gi dafa daje yu bari démb dañu nekk ci consultation gratuite bi ma wax ne gaaw bu riis a ngi nii samedi démb ji saw samedi bu riis la ndax ñi ngi ci sant téeméeri at yi sëñ Modou Rokhaya ci kaw suuf ne ci téeméeri at ak fanweer yu sëñ Modou Mamoun taw maam Cheikh Anta ne ci téeméeri at ak ñaar fukk yu alaaj sëñ tàkk sëñ Modou Rokhaya dafa wax ne sëñ Modou Mamoun fanweeri at la ma mage 1918 laa judd mu judd alaaj sëñ tàkk sëñ Moudou Mamoun magee ko fukki at moom maa seet bàyyi Seex Jaxate sama bàyyi mu judd 1898 sëñ Touba sanc Touba 1888 1888 dégg naa ñu bari naan 1887 ak 1886 sëñ Touba 1884 la ñëw Daaru Salaam la sanc Daaru Salaam di bisub talaata yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar tisbaar ji ñu fi njëkk a noddu Moodu Mataar Mbay moo ko noddu sëñ Tuubaa jiite tàkkusaan loolu moo waral noddkat yii di barkeelu ci Ibra Mbay mi doom mi sëtu Moodu Mataar Mbay baayam moo ko wutu woon ca noddu googu Daaru Salaam di dëkk bi sëñ Tuubaa njëkk a sanc Cheikh Ibra Fall am fee ngërëmul yàlla njëkk fee amee ngërëmul yàlla sëñ Tuubaa njëkk fee seexale doomu aadama maanaam boole nit ak nit ñu lay jox addiya di la laaj ndigal te demul ci sëñ Tuubaa bi ko sëñ Tuubaa defalagut maam Cheikh Anta kenn amul moo tax sëñ Moussa Ka naan ko lu nekk yaa ko njëkk am ci réew mii ci xeeti xayte kii du njar ci soow mi lu nekk yaa ko njëkk a am 14 18 guerre bi gën a métti ci àdduna fekk sëñ Tuubaa njaareem sëñ Tuubaa 1912 la ñëw njaareem 1914 la moo daal déclarée juróomi ati ger la 14 ak 18 ba 18 bi guerre bi jeexee kenn amatul dara réew bi daa fayit adduna bépp tas maam Cheikh tubaab yi ndaw ñëw ci sëñ ngir mu jàppale leen ci jox leen xaalis ci la leen sëñ Tuubaa joxe woon 5 millions yooyu maam Cheikh moo dem dëkk bu ñu wax Kambuus ñu daan bay ceeb ca bare la ko lañ. fa la maam Cheikh Anta woon batab ceeb boobu andi ko ci réew mi bi mu andee daf nañ ko séddale ci réew mi te buñ wut fuñ koy kuñ ci jox ak kuñ ci dul jox fu ab gaar ne nañ fa wàcce toni ceeb jox waa dëkk bu ñu séddoo ko Moussa ko ne ko yaay ndimbalul réew mi ci ak mu bekkoor yaa daa defal baa doole yeeg ñu fiy buur kon lépp loo xam ni taraanga la joo xam ne nit war na koo jariñoo desitu maam Cheikh Anta la desitu maam Cheikh kon ja toll na ci agsi nañ ci jamono joo xam ne bu fekkee ne université yi ñu ci maam Cheikh Anta ñu di koy jàngalee waxkat yi waxuñu maam Cheikh Anta sëñ musaa Ka noon na ko mu nee su laa ba suuf sa jëf yi mu nee su laa suxlu sa jëf lu ko waral mooy ndam ya moo rëy ba muy man di def ku yàlla bind mën a góor bi ko sëñ Tuubaa di jox teraangay àdduna ak joj alaaxira nit ñi booba bi mu commandé ceeb andi ko ni ko nit ñi doon wooye mooy neni xon xonxoneer mooy xorondoom boo demee ci xorondoom la fay seen nen yi day niroog ceeb dañ ne Seex Anta andi na fi neni xonxoneer yu ñuy togg nga xam ne ko boobu kenn xamagu ko bi muy dëkkoo ab tabax di sakketoo ay seng di añe ceeb di reere cerey lay di ndékkee kafe ak mburu nit ñi booba mënuñoo am biskit sëñ Moussa Ka nee na la daan def ndékki di aña ceeb di reeral taalaale moo tekki bi muy commandé ndoxum Evian di ko naan booba nit ñi amuñu teen bu bënn gànnaar la daan jënd jënd ji ndox ñu di ko def ci ay damsaan di ko sëf ci ay gëléem moo tax Moussa Ka ne ndoxum butéel la daan naan fa léegi gaawaan lépp luy teraanga maam Cheikh Anta ko def ci réew mi te teraanga ji tàllalu loxoom di laaj addiya dafa amoon li ñuy wax xalaat réew mi ni mu sënnalikoo dafa nekkoon opérateur économique bay moo gënoon a siiw ci réew mi boo déparé Daaru Salaam jëlal yoonu daaru musti wi boo jàddee dëkk yi càqam yi ñaaxeen kër Ousmane Pire Ngaay Mexe Mbaam ak Aras Gaawaan Bambay Ngay Ngay Daaru Siise Daaru Baaxum Touba Toul Sugeer Ngangaram Tàllay Baari Ndondon ba ni ngay demee Mesre Alba ci biir biir nga Ngoroxeem sëñ gaawaan dafa topp réew mi dagg ko ci digg bi def fi ay seex seex bu ne mu boole laal mbooloo suñ bayee ba mbay mi ànd mu jox leen xaalis ne li baykat yi bay jënd leen ko ñu jënd mbay mbayum baykat yépp maam seexam stocké ko bu tubaab bi ñëwee ci réew mi ak ma naar yi maam seexantaa leen di jaay gerte ndax fekk nañu jaay seen baykat yi seen suñ nee 15 la ñuy jëndee maam seexanta jëndee duubal fifteen duubal mooy ñaari fifteen bu jëndee duubal mu jënd ñaari duubal ak tànk ba ni muy jënd dërëm ba tubaab bi jënd dërëm muy jënd dërëm ak genn wàll bu tubaab bi jëndee dërëm ak genn wàll mu jënd ñaar tubaab bi mënut a am ci accès ci baykat yi maam Cheikh moo daan yokk prix bi ndax mooy jënd lu tubaab bi mënut a jënd te bu tubaab bi bëggee jënd moom mu jaay ko kon kii ndimbalul réew mi la woon ci wàllu économie bu dee ci wàll transport moo njëkk a xàll yoonu Touba bii dañoo am benn oto bu ñu wax big oto big commandant cercle bi indi ko njaareem sëñ Touba na Cheikh ndax oto mën naa dem Touba mu ne ko mën na faa dem Touba bi ne ko mënu faa dem sëñ Gaawaan jël oto bi indi ko Touba bi mu dëppee mu woo Alaaji Ibrahima Dia Alaaji Mun Jaay Jóob Alaaji Mor Faati Touré ne leen damaa bëgg ñu xàllal ma fii ba njaareem alaaji Mor Fati Touré tàmbalee da Touba mu Mun Njaay Jóob tàmbalee daaru euh, tàmbalee Nduga bàyyi laay gay tàmbalee njaareem dajeeg moom moo taxoon ñi fab sëñ Lamine Touré bàyyi ko Touré Nduga ñu xàll yoon wi gajj-gajj bi maasale ak kàmb yi fàkk ko ba mu ak si njaareem mu ne commandant cercle bi bu la neexee dawal dem Touba kon réew mi maam Cheikh Anta mu jënd fukki otoom ñaar xam na capital bi mooy njaareem te nit ñëpp ci sëñ Touba lañ jëm si te amuñu waruwaay bu leen mën a andi ci sëñ Touba mu bàyyi benn oto ndar bàyyi benn njaareem na oto bii nay xëyal it ndar di ñëw njaareem jël ñi nekk ndar andi leen ñu siyaare sëñ Touba bu ñu noppee oral bi gont yóbbu ñuy fanaani ndar ñaari oto mu jël benn wàcce wàcce ko ndakaaru bàyyi benn njaareem bii di xëyee njaareem di dem ndakaaru bee di gonte di xëyee ndakaaru jëm si njaareem dañuy juyolante mu jël benn bàyyi kawlax bàyyi benn njaareem bii di xëyee njaareem dem kawlax bii di xëyee kawlax di ñëw njaareem noonu la organisé woon li ñuy wax oren nga xam ne sëñ Tuubaa amul ci mbooloo mi ku ko bëgg mën a xëy siyaara si te oto doo gis oto bu la indi lu mu ci woon nit ñi mën a agsi ci sëñ Tuubaa bitig bii sëñ Saali wuy nettali sama baay Ceerno Jaxate mook sama baay ñoo bokk benn ndey Aminta ja nga leen jur sama baay Ceerno Joxate lañ ko joxoon moo ma ko nettali ci làmmiñam nee na ma maam seexante dafa ñëw na ma njabootug sëñ Touba gii waratuñu génn ci kër sëñ Touba di dem ci bitti ñu leen di gis te mënuñoo ñàkk lu ñuy jën damay def bitik ci koñ bi soo demee njaareem kër gu mag ca wet ga féete gànnaar jàkkaarloo kër sëñ son yi bu faal fa fa baraag ba nekk tey boo demee daqaar dañu wane ne jaan da ca daa nuroog jaan angle boobu fa la bitig ba nekkoon bàyyi sëñ tubaa sëñ gaawaan sarse ko ba mu fees mu fab kanam bitig bi fi ñu war a taxaw di jënd daa jàkkaarloog biir kër sëñ tubaa gi ginnaaw gi jàkkaarloog mbedd bi lu ko may lu ko waral mooy waa kër sëñ tubaa rek kay jënd ci bitig bi loolu la daan wax ne ku ñëw di soxla na la jox li nga jënd woon marchandise bi waaye bul ci teg bénéfice su jeexee mu dem jëndaatal leen indi leen kooku moo doxoon digg saayiru sëñ Tuubaa la yoroon daraan sàmm sëñ Tuubaa ci fànn yëpp kon côté boobu du ci moroomam kenn su dee ci wàllu liggéey doon naa ko wax sëñ Saaliwu doon na ko wax sëñ Touba dafa masal laaj maam Cheikh Ibrahima Fall limub xaalis laaj maam Cheikh Anta limub dugub maam Cheikh yoon yónnee ci Cheikh Ibrahima mu ñëw mu ne ko ah sa sàq ya bojj nga ko mu ne ko bojjaguma ko de mu ne ko sëñ Touba da daf may wutloo dugub te du ma baykat ma bëggoon la ñor nga yët ma ko Cheikh Ibra ne ko man mii de daf may laaj xaalis te yoruma xaalis mu ne ko kon jox ma say sàq ma jox la xaalis Cheikh Ibra bind ne Cheikh rek jox sëñ gaawaan jox naa ko samay sàq ci nàngam mu deseel ma ca nangam waxtu sàngam la ma koy jox kon ci wàllu liggéey ku ci dab maam Cheikh Anta bu dee ci wàllu sàmm boobu laay mujjee sëñ Modou Gueye Ba. moo sëñ Modou Gueye jàkka ñoo bokkoon bàyyi mooy woy juru bàyyi Abdou Gueye ne newoon fii ci Daaru Salaam bàyyam lu mu daan liggéey sàmm ay baa mais sëñ bi nit ñi benn baax rek mënuñu ko am maam lu Daaru Salaam ji ñoom sëñ maamu na ngi nii nañ rey baax baax lu seer ay un million nangam lay def maam see xam te gétt la ci yoroon di ko sàmm fi mu nekk ko am baax da nga koy def ci tër moomam gétti baax la yoroon gétti baa mas naa am dëkk bu mu jëm damay bañ a tudd benn dëkk seen fa ay bëy yu mag bëy yooyu Mali la daan jóge mu laaj na laalu mu xam nga làmmiñu ndar-ndar la yor ñu ne ko leede yi dañ koy def aw sëb ci cerey sëñ diw mu ne bëy baaxut dafa tàng baaxut ci biir bu ko kenn lekkati luñ daan lekk mooy banjool yi ay naat ay cokkeer yàpp gàtt loolu la maam sax moo tax ay xar gétt la daan yor bi muy jógee gaawaan di jëm si Mbàkke wax nañ ne junni ak ñaar téeméeri bopp junni ak ñaar téeméeri bopp jur la maam Cheikh jiital mu jëm si Mbàkke ñaar fukki saakoy ngurdu la boros ci xaalis mu jëm si Mbàkke kon ci wàllu teraanga maam Cheikh Anta ci jiitu woon àdduna bépp waaye teraanga ji lépp da koo liggéeyoon waaye lépp delloowaat ko ci yoonu Sëñ Tuubaa defoon ko mooy xitma kon gone yi di suñ sëriñ si li ñu tàmbali ànd ko ak comité d'organisation bi tàmbalee ko sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Seexuna sëñ Maamun ak ñi ko seqal ñëpp ba sëñ Xaadim si ak sëñ Maxtaar Wàdd ak sëñ Mamballa sëñ Mara eh, ku yokk daal yokk te bis bii rek lañu am amuñu beneen bis bu ko féete kaw maa ngi gën a santaat nag sëriñ bu Mbàkke moom sëriñ Moustapha Ceytu di boroom xam-xam di imam waaye di nit ku maandu di ku gëm sëñ Tuubaa boroom xam-xam la imam la maandu na gëm na sëñ Tuubaa waaye di ku mën a defar ak bokk te loolu mooy liggéeyu baayam sëñ bu wax na ne bu ñu dee wax diggante maam Cheikh ak liggéey mën a nañoo fab sëñ Moustapha Keita joxe ko exemple ci fànn yépp nag kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di siyaarewaat soxna Maymuna di ko santaat bu baax di gërëm di siyaarewaat daayira bépp di leen jéggalu ci guddal gi di leen jox insha rabbi ci yeneen détail wa axiru dahwana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi